54 pour cent yi 54 pour cent dafa dafa yéeme pour yow. ci opposant en Afrique bu jógee kaso demal nga lire taarixu histoire u Afrique non d'accord ak taarixu histoire u àddina ci science politique non taarixu histoire u Sénégal rek la ñuy yem yam ci non damaa bëgg nga wax ma waaw ban jamono la fi un président de la République mhm. ay élection am te bokk ci te bokk ci bokk ci moom ah pour yow loolu moo ko justifié mais xam nga loolu ko justifié est-ce que wax ma leneen lu ko justifié non yow xam nga ni par exemple Macky Sall bu bokkoon ci élection yi ni ci Ablaye Wade doon bokke ni ci Abdou Diouf doon bokke c'est la première fois laa la wax 54 pour cent yi dëgg la mais c'est la première fois aussi ñu dem ci élection yoo xam ni président de la République bi téye woon nguur gi bokkul ci élection yi. bokkul ci élection yi jëlal c'est la première fois opposant ah non attends déglu ma rek wax ay 54 pour cent 54 pour ma lay wax ni c'est historique. léegi on va vers la clarification. xoolal élection législative ci ñun. waaw nga ni sondage yi baaxul. waaw xam nga loolu télé nga ko waxee. waaw maa ko wax waaw. ba résultat yi génn. non xam nga no xam nga man. man ma indil ay wax ju bari. xam nga xam sondage yu démb. n'a rien à voir. non non non sondage yu tey wala sondage yu suba. non si man sondage laa lay wax. déedéet ah, déedéet man sondage laa lay wax. non non man damay bañ nga naan ma non Pape Ngagne la waxoon wala wala non man nekkuma ci yooyu. li ma nekk mooy xoolal jëlal sa responsabilité ci sondage yi. non mais dama koy préciser. nga wax waaw damay préciser sama responsabilité. nga wax rek sa responsabilité ci sondage. Amadou damay préciser suma responsabilité. Uh-huh. sondage yi. Uh-huh. yi nga xam ne gis naa ko. waaw def na une semaine. waaw fii ak fii may wax ak nii am na yeneen yoo xam ne gisaguma ko. Mhm. am na yeneen yu mën a am dans une semaine. am na yu mën a am dans trois semaines. yooyu mënaguma cee wax xaw ma lu ciy xew. moo xaw ma xam nga boo toogee. dans pour la crédibilité publique yow en tant que analyste soo nee il y a des sondages la moindre des choses parce que tamit voix autorisée nga soo waxee dañ naan Papa Ngagne nee na sondage da ngay joxe source sondage ban étude ban étude institut moo ko jox nga joxe proportion yi. mais boo nee ma ta mu ngi mel ni tey man ma toog pour défendre sama camp xam man du jël risque boobu ak yow risque bi ngay jël man du ma toog fii naan la y a des sondages qui nous qui nous donnent cinquante députés di ko wax avec une légèreté déedéet dama ni la citeel ma source sondage yi nga jox ma proportion yi on va discuter. ok Amadou ñu ñëw ci leneen. s'il vous plaît euh, mooy euh, débat bi nga xam ni sa leader na ci Amadou Ba. Mm-hmm. am na ñoo xam ni diversion lañ ko jàppee am na ñoo xam ni euh, niñ ko jàppee sax gën na sori loolu parce que Bougane dafa dugg ci kaso bi le lendemain mu wax débat bi mooy dugg na ci kaso bi nañu def loo xam ne day tax mu fàtte ko maanaam nañu dem ci waxi débat bi Amadou Ba Ousmane Sonko kenn dootu fi wax nangam nangam léegi débat boobu nga xam ni man loolu ci forme bi laay wax soo ci bëggee tontu nga tontu ci mais ñu ñëw ci fond bi mooy convier Amadou Ba ci débat lan la mën a jural Ousmane Sonko ak lan moo tax mu jublu ci ak lan moo tax mu wax ko. déjà dama bëgg encore une fois ñun duñu def politique à la petite semaine mooy les calculs les calculs d'apothicaire la c'est franchement loolu du Pastef. nañ leen suul non d'apothicaire mooy leeralal ma xam waaw nañ leen ñëw. ñu suul débat wu coowal Bougane. waaw kay nañ leen inventé benn débat maanaam mu teg benn contre. man damay toog may xalaat quoi ma ni mais da loolu da ngeen ci aay nag de c'est-à-dire loolu moom. loolu loolu seen yëf la seen yëf la de deux choses l'une et je et je et je crains le pire bu may wax lii mooy y a le niveau de méconnaissance des analystes ci Pastef man daf may mujj tiital parce que ku xam Pastef xamoo ko ci ay contre-feu c'est-à-dire fi ngeen teg ni opposant yii dañoo nekk ci suñu agenda fu kawe da ngeen a juum totalement mais totalement. et c'est c'est terrible li ma lay wax nii gis nga rupture politique dañ koo woote bi ñu nekkee opposition le débat était juridique juridique on parlait de mandat de dépôt sénégalais yëpp réviser leur classique ñëpp mandi ci droit mandat de dépôt premier cabinet loolu nga daan dégg liberté provisoire instruction ñoom bi ñu yéegee ñu ne coow yooyu jeex na on va orienter l'affaire sur les débats économiques. may ma ma ñëw. Amadou nit ñi commencé dégg loolu nit ñi commencé dégg xaar xaar xaar xaar nit ñi ah, commencé dégg Amadou Amadou Amadou. may ma ma ñëw Amadou non bala ma lay may. Amadou soo bëggee wax loolu dafay mel ni benn arresta benn arrestation amu fi benn euh, instruction amu fi benn mandat de dépôt amu fi. mais boo waxee li ngay wax dafa mel ni yéen da ngeen ñëw rek teg loolu fële. alors que ñi nekk ci ñi dugg ci kaso bi boobaak léegi kenn mënu la wax nu mu toll. kon mënu la wax nu mu toll. kenn mënu ko wax nga mën koo lim ci loxo sa juróom fukki. baaraam juróom benn weer doo waaw ci waaw acca ci juróom benn weer. limal ma fukki nit yu ñu tëj. Ah, fukk képp nag laa la wax. non non ñun on était à plus de 2000 arrestations limal ma fukk. non non non non. xam nga mënoon naa ni la juróom. non non soo limee juróom da nga ni da nga ni juróom. juróom ma ne la ci juróom benn weer. waaw loolu kay mais loolu record la. record la loolu record la juróomi nit. ci juróom benn weer. ñu jógee ci 2000. loolu record record la laa la wax. yow xamoo liñ dund un plan pro planifier de chasse à des militants chasse. Oui. un état de façon massive et concertée sur l'ensemble du territoire ngay chasser ay nit. lii nga jàpp ay individus yoo xamante ni li ñu wax ñi ñu def ñëpp dégg nañ toog daggi saaga toog def lii toog def lii matuñu juróom nga toog naan yaay une dictature en place. non mais yéen daf leen ndànk. égaleel ci économie bi loolu laa bëggoon ma ni la égaleel président ñëw nii waaw nañ leen lancer débat yu bees yu amal njëriñ askan bi on va ma de tontu ñu convoqué la on va parler de ku ci tontu loolu la wax de moo ko wax de moo ni débat bi waratul nekk ci lii dafa war nekk ci économie nañ ci wax waaw te ku tontu mu mu ku tontu Cheikh Yérim Seck joxe ay chiffres ñu convoqué ko Bougane wax ci ñu convoqué leen loolu lañ leen ko mais mais attends Cheikh Yérim nan lañ ko convoqué leneen lu dul chiffres yi nga yi premier ministre wax da nga ko weddi loolu la di alors que man maa dégg Ousmane Sonko mu wax ni li ma bëgg mooy nañu wax ci débat bi bu leen nangu ñu leen koy yóbbul ci ay débat yu yu yu terre à terre yëgal leen niveau bi ci économie ak ngeen ni ngeen ni le débat sur le déficit la dette la croissance le chomage kenn du ko fi posé mu ne leen nag boobu mooy nekk la tempo comme que dañ doon wax ay chiffres premier ministre bi nga xamante ni il a ministre des finances nekk premier ministre mu ne ko kaay ñu dugg ci benn débat boo xam ni dinañu permetre ñu éclaircir beaucoup de choses xam nga quel est l'intérêt de ces débats FMI bu ñuy calculer risque pays daf ci am stabilité politique bu ñuy xool risque état bi ci endettement am nan lañ est-ce que wóolu nañ état bi du ñu xool rek capacité am à rembourser dañuy xool ci risque bi la stabilité politique stabilité politique daf ci bokk. ñu xool la qualité du débat politique l'apaisement ak relation yi acteurs yi am suñu gisee ni la climat est apaisé dëkk boobu dañu jàpp yaa tous les possibles. Ah, mais même boo amee donc loolu mooy objectif débat bi. non déglu rek. débat bi mooy man da nga maa weddi. waaw ñëwal ñu teg ay chiffres. yow yaa nekkoon aux affaires nekkoon nga premier ministre nekk nga ministre des finances. et du budget foofu def bokk ci ñi falsifié. waaw chiffres yi boole ci loolu. déggoo ma loolu mu nekk loolu lépp xam nga luy leer. wuy ma xam nga lu koy leeral. Mhm. toogal ma toog. nga génne samay chiffres ma génne samay chiffres saagante du am teesante du am waxante lu bon du am pour la première fois nañu dugg sur un débat serein et calme ngeen ni loolu sur les chiffres qui est extrêmement important. ngeen ni loolu. ngeen ni loolu c'est pour masquer arrestation Bougane. ok mais parfois on se demande si ban ban planète la analyse on se croyait que ni depuis les affaires l'affaire présidentielle médias yeeg analyse yu bëri dinañ yeewu. mais ils retombent dans leur sommeil dogmatique te jàpp naa ni législative bi moom bés bu paree ñu bëri boo moytul duñ génn tele parce que parce que érésile intellectuel la nga jàpp ni bugaat moo tax ku toll ni Ousmane Sonko di woo euh, Amadou Ba débat da jàpp ni Ousmane Sonko dafa jël question dette ak ay fiscalité ak ay affaires yooyu xeeb nga bugaan de. non ni nga waxee noonu xeeb nga trop ah. xanaa encore une fois. franchement yaa ngi koy xeeb ah. te loolu loolu ma loolu moom foog que ce soit bugaan Thierno Alassane Sall dama ni la. démocratie mënul wér te amul opposant te gis nga man kañ laay kontaan le jour où on mettra en place le statut de l'opposition ak le financement de la démocratie pas des partis politiques sax de la démocratie. ba nga xam ni l'opposition a les moyens de s'opposer fa ñu war a opposer wu bu ñu demee assemblée même bu ñu amee quatre députés nañ leen jox commission yoo xam ne nañ mën a defar sax commission d'enquête man loolu mooy sama combat parce que démocratie mënut a am te opposition amul. démocratie de mënut a am te saa yoo nee da nga bëgg a ñu ne la ko fi marche. ba nga ba nga déposé marche ñu tere la ko. loolu ah. non non ak kay léegi benn marche amu fi bi ngeen ñëw ak léegi. non mais c'est marche bu déposé ngeen tere ko. gis nga dëkk bi expliqué ci loolu. oui ma bu njëkk ba da nga daan dem tous les carrefours de ce pays de dakaar boo fa ñëwee ay takk der nga fay fekk ñu fees dell pendant des mois et des mois boo xoolee l'ambiance de ce pays xam nga ni fii dëkk bi changé na y pas une volonté de chasse à l'opposant wallahi amu fi la décision du conseil constitutionnel gis nga ko avec les recours qu'il bu ñu ko joxoon instruction lu mu wax nee na pour le cas de tel et de tel c'était le au ministère de l'intérieur il aurait pu les sëriñ bi nañ leen wax ci lu am solo question yu utile te le débat politique le débat médiatique man ce que je crains mooy la la sphère médiatique refuse de fair sa mutation au regard de ce qui s'est passé avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye. soo waxee mutation mooy dafa mel ni. dañ fi gis mutation tey ñu ci loolu. non mutation bi daf ñëwul de. mutation mutation. xam nga lu tax gisaguñ ko ci espace politique bi. ba koy gis ci espace médiatique. ahankay ahankay gisaguñ ko benn yoon ci espace public bi euh, ba politique bi ba koy gis ci espace médiatique bi bi Ousmane Sonko nekkee les débats xam nga lan la woon ban tarixa la bokk sikkim bi nan la toll tubéy ji muy sol fan la yam jabaram day muuru fii la dëkk Casamance waaso bii la bokk yooyu moo doon débat yi. c'était le niveau zéro le degré zéro du débat intellectuel fii nag dañoo ñëw indi dette chômage déficit taux de croissance wax nag fan la ñu yóbbu agriculture lan lañ soxla renverser débat yooyu ngeen ni duñ ko fi teg on passe du juridique dans l'opposition à l'économique ak le développement le progrès ah, débat yooyu débat yooyu assemblée nationale la gëne woon. non non non non dans l'espace politique déedéet non non ci DPG. Oh. débat yi ngay wax nii euh, débat yi ngay wax nii. débat xam nga Amadou. Amadou je parle des médias. non man Amadou waxuma la ay man. man je parle de l'espace man ma lay wax les politiques. man ma lay naan ma amul dara lu bees ci médias yi gisuma. lu bees lan lan laa fi gis. gisoo fi lu premier ministre bu war a dem euh, euh, assemblée nationale. def ah. déclaration de politique générale mu ne du ko def. président de la république. lan moo tax bu ne du ma du assemblée nationale. premier ministre day dem def discours ni tas naa ko mais yooyu laa fi gis. gis lan moo tax demul assemblée. non loolu duñ ci dellu soir. ah non ah. non mais loolu loolu. kon kon pourquoi nga koy wax. mais loolu loolu. pourquoi nga ah, koy wax. lu tax demul. lu tax demul dafa ni la yaa foo faux règlement intérieur bi circulé baaxul ñëpp weddi. lan moo tax ñu dem changer ko yéen gis nga ñii nee nañ la boo ku de domaines xëy na dinañ ci ñëw gouvernement bi nee na du ma fonctionner dans l'illégalité affaire u dette bi comme affaire u dette bi la ni ko mënoon nga koo nëbb comme ni ñu doon defoon mu ne leen nëbbuma tous damay génn wax dëgg gi donte les savoir nous coûter. nañ ci ñëw après. léegi mhm. moom daf ñuy wax dëgg gi mais dëgg gi ci grève de la faim ci bi muy dem Casamance lépp daf ñu ko nëbb ba bërki dem la ñu koy doog wax. je te te yéen daal vraiment man daal j'essaie de comprendre quel lan mooy daf ma ko nëbb Ousmane Sonko est un homme politique qui en face d'un régime. est un homme politique qui est en face d'un régime. ñii dañu may ma rek dañu manipuler ay chiffres moom dafa manipuler ay doomu aadama. je te te mais yéen mais mais li ñuy wax c'est une marotte la journalistique boo xam ni depuis xam nga lan moo changé ci débat discours média yi mooy le discours religieux. léegi moom alhamdulilah génnatuñ Ousmane Sonko daa contre sëriñ ak ni mu daan ñëwee gis nga dafa jekki jékki rek disparaître la mais ngeen continuer bëgg nii Ousmane Sonko dafa doon manipuler nit ñi kon yéen da ngeen jàpp ni sénégalais ay dof lañ quoi. dafa doon manipuler yow itam Amadou. yaa ngi ko doon dégg bi muy wax non mais moom moo ko wax. mu ne dama doon manipuler nit ñi bien sûr. dama doon manipuler nit ñi. non mais xam nga non xam nga xam nga Amadou. non papa ngañ les mots ont un sens ah. Sonko joxe na xaalis maire. Amadou. enveloppe Amadou. mani la ah man de. amadu bugguma bugguma Amadou Amadou xoolal yow non non xam naa ne yéen a